jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi amaan mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Tëngéej ku ne xam na ni le 24 décembre Yaram Aar moo woote fële ca arène nationale ju neex di dox ci diggante ñaari xale war a ci diggante ki nga xamante ni mooy Gamou Gueye ak Tapha Mbeur ku ne xam na ni demoon nañ fële parcelle fekk fa ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur waxtaan ak moom mu am lu mu waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Tëngéej seet si ki nga xamante ni mooy Gamou Gueye di adversaire ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur fas yéene waxtaan ak moom war a amal fii tey point de presse wax ak supporters yi wax ak amateurs yi wax ak internet yi bu ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan bi gam nuyu nañ la siyaar la. oui maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant euh, ñi ñuy jàppale ñëpp di sant waa Tëngéej ak ñi nga xamante ne dañuy jàppale Gamou Gueye ñi nga xamante ne dañuy ñaanal Gamou Gueye di sant suñu waa écurie bu baax a baax a baax di sant mbëri Tëngéej yëpp. di sant samay entraîneur ku man ni papa yaa mu mag di ko ñaanal wér yaram di ñaanal waa këram di sant Bolo di sant Pa Forman di sant Idi di sant Babou Kale di sant waa des sport yëpp saal ba ñëpp comme naan nga di sant papa Cheikh Mbaye di ko ñaanal yàlla na ko sunu borom génn fi mu ne dañ daan jàppale fi la daan ne di ñaanal Mbaye Ndiir Ngaala Café Maam Demba comprendre nga ñoom ñi ne foofu ñëpp di ñaanal yàlla na leen suñu borom génn fii ñu ñëw di ñaanal sama ndijaay xam ne da daan sonn si man heure bi da daan fekk mu taxaw fii suma ma lépp moo ko daan gérer Habib di ka ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ak papa yaa damu ndaw ak ay daaf ñoom ñëpp yàlla na leen suñu borom yërëm xaare leen àjjana di ñaanal tamit suma benn booy moo daan tëye sumay cumbukaay moom moo daan tee sumay cumbukaay Sané di ko ñaanal dafa demoon si gaal ba léegi ñëwagul kenn xamul fan di ko ñaan yàlla na suñu borom nit ba ñëw Sané moom suma ma moo ko daan yor soo booy la moo daan yor sumay cumbukaay lépp benn booy la nii billaahi waaw yéen tamit di leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm tamit di leen wax yéen loo leen bëgg tamit yàlla na leen ko suñu borom defal incha allahu rabbi di ñaanal tamit limousine Limousine maa ngi koy ñaanal tamit yàlla na ko suñu génn mu ñëw di santa mbër yëpp di ko dalee ama neex ñoom doomu daaw ñi mbër yëpp maa ngi di sant mbëri tëngeej yëpp di ñaan fayaax étudiant ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn doomu daangu ama neex Sénégal ah bidéew bu tëngeej comprendre nga Ronaldo ñoom ñëpp maa di sant Youssou Ndour 10 000 problème bàyyiwuma kenn ah. ah, yeex yëpp waaw Ablaye Diop serpent noir gàmmu ñu jëm ci bis bi nga xamante ni yaakaar naa ni ñaari xale lañ boole ñii sa diggante ak ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur gàmmu gay nan lay waajee combat bi ak fa la ci wàccaay waaw wàccaay bi ñu ngi si rek ñu ngi si bu baax àndaax suñuy mbokk yëpp di wax ñu ñu yàlla defal ñu ndam ñu daan Tapha Mbeur di wax oo oh, fukki pencee ñaar yëpp lébu yëpp ak ñiy jàppale gàmmu gay yëpp lébu yëpp ma leen wax gàmmu gay nee na ngay ñaanal ka mu daan Tapha Mbeur le 24 décembre incha allahu rabi waaw surtout waa Jokkul waa Jokkul maa ngi wax ñu ñëw jàpp si combat bi bu baax a baax a baax a baax Jokkul gépp fukki Jokkul yëpp waaw. mais gàmm gàmm la moo ko dugal ci Tapha Mbeur gàmm la moo tax mu jël combat bi digganteem ak Tapha Mbeur nekk xale boo xam ni dafa nekk ci yoon gàmm ñëw jël ko gàmm la moo ko ci dugal. Ah, Tapha Mbeur làmb moo nu boole rek làmb moo nu boole rek dafa bokk si sama yoon rek ñu war a bëre comprendre nga làmb moo ñu boole rek. dafa dafay preuve ma dafay preuve làmb boole ñu ñuy bëre waaw. mais ku xam gàmm xam ko ci xeex est-ce que gàmm gay mën nañ xaar digganteem ak Tapha Mbeur mu ñëw xeex moom ndax yaakaar naa Tapha Mbeur tam mbëru xeexkat la. waaw làmb ji jour làmb ji lu mu laaj rek incha allahu rabbi làmb ji moom lu mu laaj moom incha allahu rabbi dinaa ko def waaw dinaa ko def bu neexee yàlla lu mu laaj rek incha allahu rabbi dinaa ko def bu laajee bëre dinaa bëre bu laajee xeex dinaa xeex. lu mu laaj rek incha allah dinaa ko def waaw. Ah. lu mu laaj di nga ko def. waaw ah. mais ngay dajeeg xale bu nekk ci yoon est ce que loolu dina yomb seen diggante yi ñaar. non làmb yi benn làmb mënatu fee yomba yaaw jaa sax ba la ko joxee seen seen combat du yomba kii day ànd ay ay mbokkam préparé yow nga ànd ak say mbokk préparé moom muy entraîné ngay entraîné comprendre nga moo tax mënul yomba quoi ah ku ne sa làmb day yomba rek da lay wax lu la neex ah. ñu ne am ñu ne Gamou Gueye digganteem ak Sokh moo ko boole ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur ñu ne Gamou dafa retard ci làmb moo tax mu jël Tapha Mbeur est que danga nga retard wala xale bi moo la dab ci làmb. non làmb ji amul ay retard ah yooyu làmb ji amul ay retard amul ay dabante làmb ji xam nga lan la yaa mbër mi da ngeen di war a bëre làmb boole leen ngeen bëre comprendre nga instant bi làmb ji looloo amul kii maa raw kii amul kii moo la raw da ngay soxla nga soxlaa ko promoteur tëgg ka ngeen bëre. mais ñaar ka moo ci soxla moroom nu ñaar dafa am mbër moom moo ne ñu jox ma gàmm dafa am mbër moom moo ne ma boolee gàmm. moom moo wër ne nan ma jox gàmm. waaw mais est lum yaakaar ba tax nan ma jox gàmm. moo tax ma ne la lamba amul benn lamba bu siy yomb lamba lamba la benn lamba mënul yomb da ngay préparé wu sa morom di préparé wu mais damay ñaan yàlla suñu borom may ndam. mais Tapha Mbeur mooy wër ne nan ma jox gàmm gàmm ngay dégg loolu moom tam jël Tapha Mbeur waaw mais làmb moo nu boole moo tax làmb moo boole moo tax ma jël ko lamba ji làmb moo nu boole moo tax ma jël ko. mais mais problème bi mooy xale bu nekk ci yoon ak waa parcelle ni ñuy préparé combat bi daf leen a ñor. waa parcelle waaw xanaa gisoo waa Tëngéej. ñii ñan la ñi sa ginnaaw ni waa Tëngéej la fii boo gisee champion yi Tëngéej yëpp nee ngi nii taxaw champion yi nee ngi nii taxaw Tëngéej. Mhm. ñii nee ngi nii taxaw man ñii laa yaakaar waaw. mais Gamou xam na dayoo combat bi. waaw yow fu mu ko mën xool ma xool ma nagam xam naa dayo combat wala xaw ma ka maa ngi daj maa ngi daj coono yu métti maa ngi def li nga xamante ne nii bu ma ko defee suñu borom defal ma ndam maa ngi def waaw te combat bi ba ñu ma si dara bañoo ci dara bañu ma si dara mais seen diggante yee ñaar lan la wax ji dafa bëri règlement de compte dafa seen diggante wala la non man moom ku ma xam-xam ne xaw kenn xamee ma ay wax man kenn xamee ma ay wax man su may wax sax bëriwul waaw man daanaka ay wax sax du ma ko def mais Tafa de nee na da ngaa juum. juum ah, man manumaa juum si Tafa mbër. Hmm. incha allahu rabbi man maa juum si Tafa mbër. man damay yaakaar ne moom moo juum moom. ah moom moom moo juum. Tafa mbër moom moomu. lan lañ mën a xaar seen diggante yéen ñëpp. arbitre bi sif ma dox si kawam jàpp ka daan ka incha allahu rabbi. ah gàmm yombal nga ko de. non yombalu ma ko de. nga ko yombal arbitre sif la nga dox ci kawam jàpp ko. yombal ma ko déggoo li ma la wax. ngay entraîné muy entraîné. moo man li ne si incha allahu rabbi le 24 décembre bi sifle ma léewtoo jàpp ko incha allah nga koy wax moom Tapha loo koy yóbbante. Tapha Mbeur lan laa koy yóbbante. mu ngi lay xool xool ko. ah Tapha Mbeur. Uh-huh. le allahu rabbi mu ñëw ma jàpp ko daan ka mu ñëw nga jàpp ko daan ma jàpp ko daan ka incha allahu rabbi mais da nga jël combat bi en ligne yow yombal. pourtant yombalu ma combat man combat yu ma bëri yëpp combat bi laa a nekk fii di wax ay wax yoo xamante ne nii waruma kaa wax kon wax ju kon wax ju bëri nii man daaw ma sax wax. mais wax jooju lan moo ko waral. wax jooju lan moo ko waral <laughs> non ki ma dajal la rek moom moo ma wax loo quoi a ah. <laughs> moom moo a wax loo <laughs> ki ki nga dajal moom moo la wax loo. waaw la moo tax mu wax loo la per. waaw mais moom la rek. moom la rek moom moo ma wax loo mais loolu jéem na. minute dafa xew de. maye la non man maye minute de. <laughs> mayoo ma ay minute de. mayoo mayoo ma ay minute de. lu tax waaw mayoo ma ay minute de. mais yaakaar naa combat bi ñaari diis la. Uh-huh. mën nañoo xaar premier diis bi diis bu tàng jër xeex dem ardu ñëwaat seen diggante yéen ñaar. man daal suma bopp laa mën a assuré. incha allahu rabbi bu neexee yàlla. ar lamba ji lu mu laaj dinaa ko def. ar bu siflee incha allah ma dox si kawam jàpp ko daan ko incha allahu rabbi. mais bu mel ni waa Tëngéej combat daa am fu mu leen toll. parce que ñëw nañ fi gis fi ay ama neex ñoom doomu dangu ñoom ñëpp. ñu ñu ñu ñu la. non ay ama neex man ama neex mii moo ma dugal si làmba ama neex mii moo ma dugal si làmba kii man maa ne woon premier supporter am. ama neex mii bu ñu bëree see jéey xaw ma see jéey xaw ma tamoon na igri ñoom tafaatin ñaari kaar lañ yóbbu woon. benn kaar bi man maa ne woon si kaw. maax mbéy gay yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. yor drapeau yi ax béy di fekkam waa yow man ma laa expliqué lépp quoi. barka alxuraanul karim ama ne yàgg na jàppale Youssou Ndour mi tamit waxi noppi dama doon football kade Ronaldo male moo fekkee fë bër ji bàyyi football bi barka alxuraanul karim ma raf yi gars yi ñoom ñëpp ay xol yu baax lañ yor ñoom ñëpp ay xol yu baax lañ yor buñ la yéenew loolu dañ la wax loolu comprendre nga ma ñëw ànd ak ñoom moom moo yaru barka alxuraan ama neex day ñëw ñëwal nii ama neex sànni ci ay kàddu dafa bari ñi Youssou Ndour mi Youssou Ndour kaay Youssou Ndour moom moo baax rek xam nga moo tax ama neex danoo ñëw danoo ñëw fekk la ci sa wetu raq nga entouragé ko mu mel ni combat bi daa am fu mu leen toll man loolu moo mu war ndax maa seen mag man ku si am bés dama war a ñëw taxaw rawatina moom mi moom dox na ma cër respecté na ma lu ma ko wax moom lay def lu ma ko tere moom lay bàyyi kon combat bi man sama bëggee laa si teg combat bi sa baxan nga ci teg. mais est ce mais est ce que xam nga xale bi muy dajal. Tapha nekk ci yoon. du dara kee ko ëppi combat kee ko daax a bëre. kii li mu des si ay lambaam kooku daju ko si ay lambaam kooku ay xale la bëreel. moom Tapha Mbeur te kii da ngay xool fa mu jógee. si defet ni ñu ngi ñaan yàlla mu gëj fi lool keroog ni mu demee la rek dafa fekkoon ma tukki yu bari fekku la fi quoi combat waaw fekkuma fi waaw mais combat bi. Mhm. booy boobu na waaj. moom Tapha Mbeur waaw doyul kalax na ko. ndëgam neex na boobu ñu ngi ñaan nag yàlla moo man ñu ñaan si mbaaxaay suñu borom ah yërmande Seydina Mohamed yàlla na nu yàlla may ndam mais sa diggante ak xale yi tëngee ji dañoo gis ni ngi leen di taxaw seen diggante yi ñëpp benn la ñoo bokk benn quartier bu ñu dëkk nee man maa seen mag man dama war a joxe bon exemple nu ñëpp benn la fii amul xajja ak seen wala ay cest à lu waaye lu ko moom lu ko métti dina ma oo téléphone na ma lii ah lii moo métti si diw man lu ma métti dinaa ko oo téléphone nag lii moo métti sa diw ah kii ah diis ah ñoom ñëpp doomu daangu ñëpp ñun ñëpp benn lañ together li américain bi naan together ñun ñëpp benn lañ macha allah waaw dañuy xàccandoo di dóorandoo nu <laughs> ngi ñaan nag <laughs> yàlla rek moo ko moo man <laughs> te xam nu ngi ñaan yàlla suturaal nu jour boobu mais ñu ndam ci barke Seydina mais xeex bañ xamoon ci gàmmu gay mën nañ ko xaar fii lépp papa yaada moo ko yor forman mooy coach am lépp benn la li si war yëpp papa yaada mu ngi koy def ak forman nun duñ si dara nun dañuy ñëw rek en tant que lutteur en tant que athlète accompagner ko. mais waa parcelle ñoom nee nañ combat daf leen a njor. waaw amul problème ba ba jour ba yàlla nu yàlla may fekkee tal. jërëjëf ama neex kii ab requin la de. ah <laughs> ama neex nee na requin nga. waaw wax na dëgg de. la ma romb tuddee la requin. non requin ama rek requin bu jàppee du bàyyi. tànk gisul deret du bàyyi. tànk gisul deret mais dañu gis léegi ci sa biir contact ngay dóor ñi ngay contactal da nga foog ni Tapha Mbeur nga jàkkaar loolu wala nu mu demee noonu. non xam nga rek lamb man man mooy loolu quoi daa bokk si man. dóor bi daa bokk si man. mais est-ce que doo ko wàññi non làmb ji man Tapha na daanu rek. amul ay dóoraa amul ay mais mais attends attends Gamou xam na ku la xam-xam la ci xeex mais est ce que xam nga yaa ngi dajeeg xale boo xam ne moom dafa dangereux. wuyu ah. doo am jabar. xale mu ngi si ginnaaw yaayam wax nga ko. ndeysaan. ah. Ah. moom dina dëggal boppam duma nee na ah. ah. bu kerogee moo uh-huh. xale mu ngi si ginnaaw yaayam dégg boo demee nee nga xale mu ngi si ginnaaw yaayam xale yaayam du ko bàyyi muy ne si làmba ji di bëre moom mooy dirigé waaw baax bàyyi ban egsi si bàyyi ko ban excès yi man man nan laa yàggee si yoon yi man dama tee la bëre man su may mag yi su may mag yi sax yàgguñu si làmba ji sax man ma bëgg a yàgg si làmba ji dañuy dugal ma si loolu man la ne dafa mbër ay wax ka neex moo tax muy wax rek dama koy bàyyee wax ji rek dama koy bàyyee wax ji rek. aja ah. loo koy yóbbante Tapha Mbeur a ngi nii jàkkaarloog yow Tapha Mbeur ah Tapha Mbeur na jàkkaarloo man dama koy wax la 24 décembre rek incha allahu rabbi ñëpp ñëw amateur yëpp ñëw incha allahu rabbi yëpp stade bi ba mu fees ma jàpp ko incha allah daan ka. mais fi lan dëkk si géej gi fii. eh bëre bay kay wax lébu moo tax. lébu yi ñoo la añ ba suur waa ci géej foo bëree dem yéegaat si kaw. déggoo ma de. dafa am na problème de kon. di lekk bio. mais attends jën bu bees tax. aywa dañ koy daan. incha allahu rabbi dégg nga étudiant nga moom xam na li tax mu wax ba pare bio la ñuy lekk bio. li bio jën bu bees tax da nga koy napp léegi jàpp ka ñëw taal sa taal lekk ka. lekk jënd peese mais mais mais le 24 décembre. di oo oh, xoolal waa Tëngéej yëpp. attends le 24 décembre waa Tëngéej dañ cee bëri ay kii. ndax yaakaar naa ni combat spécial bi. di dox diggante Eau Chaude ak nga xamante ni mooy. Euh, booy lansaar bi ak caatu kii caatu foora ñu tuddee ko seen doom papa yàlla ndeysaan jëm si yàlla si yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ban taxawaay ngeen ci fas yéene am ci loolu waaw instant bi waa Tëngéej yëpp ñu ngi préparé loolu di wax promoteur bi li mu def dafa rafet àddina nii rek la nga nit bu nekkee si dara ba suñu borom jël ko ah kenn ñaanu ko yàlla mais war nga kaa fàttaliku xam na kii nii am na si lu mu nekkoon sa si lu mu nekkoon baax na papa Yada ku baax la woon Papa Yade heure bi na kaa fekk fii nii muy yëngal fii yëpp comprendre nga champion la woon daanaan la woon barka alxuraanul karim wóor na yàlla xolam dara nekku si woon ak doogay doogay suñu mag la woon moom moo fi nekkoon ak ñoom ama neex ñii ku baax la woon dañ daan jàppale comprendre nga di oo tamit autorités yi nekk tëngeej yëpp autorités yi nekk tëngeej ñi war a jàppale mbëri maa ñaay woo ñu jàppale mbëri si Aline Mar laay commencé Aline Mar maa ngi koy woo waaw mais foog nga bàyyi nag ma oo war a jàppale ñëpp bu ko def bu ko defee stade bi gars yi mën a ñëw matu nee na woote ba mu la waaw di oo Aline Mar Aline Mar dama koy woo papa Aline Mar mu ñëw jàpp si combat bi papa Pala Menga mu ñëw jàpp si combat bi Père Mbuub Père Mbuub borom kee bi Père Mbuub mu oo mu ñëw jàpp si combat bi maître Bamar Souleymane Ndoye Badou Marème ah, Idda Sène Idda maa ngi woo mu ñëw jàpp si combat bi nga Paate Boy comprendre nga Seydina Babacar Ndiaye comprendre nga Badou Badou Dia Papi waa TFC yëpp maa leen di woo di oo waa Jokkul Ndiayeen ay Badou Gueye xam nga Aziz vétérinaire Aziz maa ngi koy woo si combat bi mu jàpp si bu baax Jibi Gueye Lamine Sarr éleveur Père Badou Gueye ñoom ñëpp xam nga. di oo Pathé éleveur di oo éleveurs yi ne Tëngéej yëpp éleveurs yi ngeen ñëw jàpp si combat bu baax xam nga la di oo papa moo sekk tamit mu jàpp si combat bu baax waa domaine waa domaine maa ngi leen di woo ñu jàpp si combat bu baax waa domaine sama ndijaay fa la woon daan liggéey Habib di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yërëm ñoom ñëpp maa ngi di oo ñu ñëw jàpp si combat bi comprendre nga uh-huh. bàyyiwuma kenn waa Tëngéej booy yëpp booy yéen ñëpp maa di woo ngeen ñëw jàpp si combat bi. booy wuy leen combat waa jokkul comprends ah. di oo di kii oo tamit kii moo Diop maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi ah, ah, maa ngi koy woo Lamine Sarr ak kii noo tuddati euh, Ndiaw Boy Ndiaw Boy Pape Daouda Jakartaay borom Jakartaay ñoom Abdou ñoom piti jakartaaye ne fi yëpp nañ ñëw jàpp si combat bi Matar SDE xam nga ma kenn ñu ñëw jàpp si di sant waa écurie Lebu gi bu baax Diagne Frigo Mamadou Diagne maa ngi koy sant di sant di sant mbër yëpp comprendre nga di sant Aline Ndiaye jon si naa Aline Ndiaye mbër xam nga di sant Madiagne layti menga layti moo nu may ay loisir nun waa écurie bi uh-huh. di sant cal gi bu baax di sant ñi may jàppale ñëpp ay gosaas ay gosaas gosaas maa ngi koy sant bu baax di oo ay papalaay yi nga papi mii papi mii ku baax la mbër mbër mu fi a mu ñëw taxawu ka jàppale ko comprendre di sant booy yëpp bàyyuma kenn di sant bool bool di sant ay asan bàyyi faal yi bàyyuma kenn tijaani laayani xaaldiri jàmmalaay lépp macha allah am na solo di oo lëbu yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi di leen sant yéen tamit bu baax bu leen neexoon lii du leen ko def comprendre nga di leen sant bu baax di sant baax mhm. baax maa ngi koy sant bu baax di sant waa ñer waa Mbinjam waa Jandeer comprendre uh-huh. waa Kayar. ñëpp xam nga waa Sembène ñoom ñëpp maa leen oo.